metti na tournée yu xeeñ campagne la président Macky Sall sàlloo ak sénégalais tribune yéen kaay nan ko déet fi mu ne kay daal dina yebal Amadou ne ko laggal ak loo mën a def na la xale yi bëgg Amadou xale yi ci boppam laa bëgg nga charmer leen ñu jox la seen xol yi jox la seen xel yi tey di la safoo le soleil yéen kaay nan man moo taxit ña ngay taxawal léegi léegi daar daar ab conseil présidentiel boo xam ne ngir ndaw yi la tribune yéen kaay naan kon la ma la wax a ngi de conseil boobee ma la sabab gi du lenn lu dul xale yi ci boppam ndaw ñi daal di jox dënn jox bopp Amadou Ba ndax fi mu ne nag fi réew mi toll xale yi boo leen ne ku ngeen bëgg tontu li day mën naa doon ñeneen waaye Amadou moom du ca bokk yéeni kaay bi mel ni ku naan man num cay bokke ndaw yoo xam ne ñi ngi tum ranke seenum réew te xam nga ni ndaw ñii seen ñàkkub xëy ci réew mii daanaka moo raw pataas bu tàng ci loxol autorité yi Sénégal yi mënuñ ca lenn xale yaa ngi jànkonteel ay jafe-jafe yoo xam ne metti na ba jéggi dayoo jaaxle ci boppam akum njàqare daanaka loolee la ndaw Sénégal nekkee fi mu ne moo tax Sall naan koon Amadou Amadou dawal dawal charmel ma ndaw yi fexe ba yow Amadou ba mii ñu taf ci seeni xol xool yéeni kaayub dee média bi naan kon Amadou Boy dem fexeel ba bul fàtte jaar doddel département bu Podor la daal di nekk ba cor wadd ma nga xam ne dañ ko dippe woon akub final ma nga xam le ni am na dëkk dëkkaat boo xam ne jomandu lañ koy woowee ca commune bu doddel boobee ci département bu Podor dara ma ne la dara moo amul ca jomandu googee suuf am na fa terewul baykat yaa nga jaxle ba mar dey taali fu ñu fajoo moom daanaka amuñu ko jigéen ñi am jafe-jafe muccukaay moom ba cor wadd di xamal ministre yii di Abdoulaye Daouda Diallo ak Cheikh Omar boppam daanaka dafa daal di xar-xareet ak li des ci Sénégal daal di jël yoonu boppam te loolee autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi waruñu ko seetaan Le Soleil yéen kaay naan maan moonte président Macky sal day ma nga naan jafe-jafe yi waa Kédougou waa Kaolack Kaffrine ak Fatick njàmbat la ñu amaloon ca conseil bu mujj bi nañ ko daal di matale Sall naan maa ngi sorati samay dàll de fas yéene jëm Diourbel Saint-Louis Matam Louga Kolda Ziguinchor réew mi ko di jee naan kon Sall lu mu tourné tourné terewul nag ma nga jéppi boole koog mere ña nga xam ne daal dinañuy gedd ab coalition Boun Abdallah jonn Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao day waajal leen seen bopp moom président Macky Sall nag ma ngay jéemati ngir jegeel leen ak amadu Ba te fii ak njeextalu parrainage yi day njortu nan ne moom Sall dina dajalewaat ak njabootam l'observateur mel ni ku naan man loo ci mën président Macky Sall activé tina of nag mbaaku ku dellusiwul ci rang yi nag di nga am jàmm ci réew mi en tout cas tribune ma may xamal ne Ibra Seck suqali Grand Yoff juróom-ñetti junni juróomi téeméer ak juróom fukk ci parrain jébbal na ko ngir Amadou Ba jébbal ko nag délégué régional bu parrainage bu Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr nag ngir waajal élection présidentielle yi 24 heures yéen kaay maan présidentielle yoo xam ne yénn ciy candidat moom dañoo tay la seenu candidature jébbal ko ñeneen diggante Pastef ak Benno Bokk Yaakaar Pastef bu dee ab la boo xam ne Ousmane Sonko ko rangu léegi ma nga wékku ci mbaggu Bassirou Diomaye Faye bu Benno Bokk Yaakaar moom xam ngeen ne Amadou ko yor di roñ-roñeeg moom tribune naan kon sàll naan kon ndaw yi nan la jox bopp Amadou Ba Vox Populi naan maan moom Bassirou Diomaye Faye moomee yaakaaru Pastef nag ma nga wékku ci ci Bassirou ndax amut lenn loo xam ne man naa tere Bassirou Diomaye Faye mii doonub candidat ci réew mi te bu ngeen fàttalikoo président da Silva mani la ci kaso lañ ko fale yoor yoor naan maan wutu parrainage bi ci Pastef day mi ngi mel ni mbàccub gerte vox populi naan kon te Ousmane Sonko daal dinay tane ña ko seeti woon ca kaso ba xamle na ni Sonko mi ngi ci jàmm fas yéene nag teg ay pexe ngir lu président Macky Sall lal mu daal di lalli le thème mooy yéene kaay naan maan Karim a ngi waajalate ab ñibbiseem yéene kaay bi naan maan yi moom mooy Bibo Bourgi Pape Pouy Alioune Diassé Vieux Aïdara ak Mballo Thiam daanaka saraxal nañ leen fa yàllaaxu terewul Karim mi ngi soobuwaat ci langu politique gi politico politique libération yéene kaay naan man waa Pastef day seen nekki nag président Macky Sall neexul nit dof moom doyen des juges ma ngay sàkku ñu yóbbooti ko kaso Diop Taïf manu jàpp décembre 2022 ak tey xëy ne ko defoo dara bàyyi ko mu ñibbi oustaz Assane Seck yéene kaay bi naan maan tey jii des na ko dégluwaat ci xóotal teyit ay awokaam ña ngay sàkku ab bàyyib nëgandiku ngir oustaz Assane Seck ngir mu fekki ay mbokkam Dakar Times naan man activiste ci boppam lañ bëggatul gis ci àddina daanaka ca France moom ñeen fukk ak juróom benn ay association seeyal nañ leen ñuy wër ak activiste yi ci anam woo xam ne daal dinay doy waar lool libération naan maan en tout cas nit dof Colline Faye Sat Sadia ak El Baro daal xam nañ ci dara ndax fi ne ñu ngi ci loxol yoon booba jàmbat yaa ngi mel ni tulleeg maala ci réew mi turbine yéene kaay naan maan natal nan gafani ki démb Cheikh Omar Anne le témoin yéene kaay naan maan lu toll ci juróom ñetti junni ci jàngalekat moo manqué ci réew mi Cheikh Omar Anne mel ni kuy tuutal loolee jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ca CUSEMS daal di dal ci kawam ba maar day taali naan kon fi mu toll nii la sunu ëllëgug doomuk réew mi ngi ci say loxo te bu jàngalekat yi manqué ci réew mi yow Cheikh Omar nga koy tuutal ci réew mi jafe-jafe mën naa am Walf Quotidien naan Habib Sy candidat la te ma ngay xam le ni bu nekkee président de la république ci réew mi ay coppite it mën naa am ci réew mi L'As Quotidien naan man boobu sàll ngaari lam tooro ma ngay xool ña nga xam ne nag ñoo yokku njëkk yi lu toll ci téeméer ci ay pick moom la président Macky Sall teg ci loxol Abdou Karim Fofana ngir mu dugg ak ci biir réew mi di saytu ña yokku njëkk te jaarale ko ci yoon yéenekaay bi naan man ña jàppoon ni diggante Abdou Karim Fofana ak président Macky Sall neexatul day mën nañ dox fo wi ndax Sall nag ma ngay wane yeneen tànk ak i cër waaye tam confiance porte parole bu gouvernement bi turbine yéen kaay naan man a laaj dëgg-dëgg moom mooy kan moo ragal alternance ak coppite ci réew mi fii la fekk ñëpp lu campagne ba metti metti woon Wade nangu na ak defetam bàyyi Sall mu daal di jàll ci palais bi bal tàkkul sagar xeeñul El Hassan Sall ci turbine yéen kaay naan man tey jii ndax mënees naa wax lu ni mel ci président Macky Sall akub ayam ñi ni caxat caxat di leen tàbbal kaso bari tey jii ndax askan wi ci boppam mën nañ jàngat alternance boobee ndax lu réew mi yëngu-yëngu sénégalais yi xool nañ ka nu bëgg daal di koy fal tey jii sénégalais yi ndax lu ni mel mënees na koo jëfeek président Macky Sall lu mu tàng-tàng lu fitna gi bari bari sénégalais yi xool ka leen gënal ak ka leen doy daal di tàbbal ci bopp réew mi te laaj bi mooy ndax sénégalais yi ñu xool dëgg-dëgg ña nga xam ne ñoo ragal coppite te ña ragal coppite nag am na lu ñuy nëbb ñu fu fuqartee ci ñu nguur gi ngir sénégal gu jëm kanam yéen kaayib des média bi naan maan sénégal mooy yéex a jëm kanam kay ndekete nag ak réseau goo xam ne day yóbbuwaate barzak ñoo nekk nag di recruter ay xale daaneel nañ leen ci ñoom ñeenti gaal ak ñeenti moteur yéeni kaay bi naan maan kabisa fm rajo communautaire bu usu yi tàkkaat na Abdoulaye Sylla moo fa jaar gannaaw njàmbatuk askan wi ak seen njàqare ak seenuk dung di dinañ koy taalaat ngir askan wi ci boppam mën a xam li xew ci réew mi l'observateur naan man boo bëggee xam li xew ci réew mi déglu ma kii nag ab faux policier la juróomi soxna la xamanteel ku ci nekk mu dig la takk sëyeg yow ba nuppi jël la nga am daal di daw fàq yéeni bi naan maan ñi génn kaso daal dinay xam ne ku ci nekk boo génnee la ngay njëkk